gan gi monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay soxna Fatou. am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey euh, tàmbali waxtaan wi ak euh, président Macky Sall mi dëgëral ay kàddoom lool jëm ci opposition bi loola jur ay tontu yu xaw a ñagas wute ak ni président Macky Sall doon waxee nag weeru mars diggante bi lan nga jàpp ne moo waral xëy na mu changer posture bay dëgërante ak opposition am. xam nga Sénégal comme li ko waxee xamuñu ku tooñ. Hmm. ku fay yoon ñu xam. ndax dafa mel ni ci sa sa sa sa question bi ni ñu ko posé. Hmm. da nga président dafa dëgëral. te xëy na bu dëgërël ab am na bu ñu waxee dëgg rek te dëgg rek tax. Hmm. wax dëgg yàlla du ñu ni président moo dëgëral. ndax dégg nga du benn yoon du ñaari yoon. ay nit ñoo nga xam ne dañu bokk ci kujje gi man damay wax toujours ni damaa far. man je dis la fa waaye damay def lépp lu ma mën ak ba bañ di farfarloo. Hmm. farfarloo mooy ki nga àndal lu mu def nga ni dëgg la euh, baax na lu keneen def nga ne baaxul wax dëgg yàlla damay ñaan yàlla bañ dugg ci lu mel noonu. Hmm. waaye nag yàlla dëgg la bon dëgg la bëgg te dëgg dañ koy war di wax te damay wax toujours de wax dëgg googu dafa manqué ci réew mi tey. Hmm. li tax mu mànke ci réew mi ñi xam. bëggatuñoo wax parce que dañu naan su ma waxee ñu xas ma su ma waxee ñu saaga ma ñi man bëggatuñoo jéem ndax dañu naan su ma waxee ñu dal ci sama kaw su ma jéemee ñu dal ci sama kaw waaye ku yor ay dopp ci réew mi dégg nga gis nga ñu bind nga fekkee ñu wax ay nit taxaw di wax naan troisième vague dina am ak quatrième vague dina am maanaam di ko jële di ko di ko méngale ak li fi amoon ci mois de mars kon bu fekkee ni am na lu am ci am réew ñu jàpp ni warul woon a am ñëpp wax ci kilifa diine wax ci kilifa aada wax ci ñëpp wax ci ba loola dal ñu ci ñaari fan wu la jàtt ay nit jëlaat seen kàddu di menacer di wax ne danañ def lu raw li ñu defa nangam kon am naa yaakaar ci bu dëgëral amee loolu la ñu war a tàmbali dénoncé ko. mais moom en tant président la république est-ce que war na nangu ñu yóbbaale ko ci loolu la ndax. kàddu xam nga fit la boo gis aussi ci ay wax lay lay déparé. wa ci ci loolu laay jëm si hmm. pour man du yóbbaale xam nga li tax hmm. li tax léegi ma wax la ni wax dëgg dafa manqué ci réew mi hmm. xam nga ñi far ñii politique ñi nekk ci ca ku yëgeeg ñi nekk ci ci ci majorité bi mënuñu àtte seen bopp ci kaw ay wax mënuñu àtte seen bopp ci kaw jëf waaye li ñu doon séntu man boog li may séntu mooy ñi nga xam ne dañu leen di tudde société si muy mel ni ñu wóoruloo far fenn ñi nga xam ne dañu nekk ci presse bi muy ay journaliste xam ne ñoom lii seen cër mooy gis ni lii am na ba pare def seen analyse ñaar ñooñu laa jàpp ne bu nit waxee loo warul wax ci réew mi ñoom ñëpp war nañoo mën a ànd doo dal ci sa kaw mais li ñu gis ci réew mi mooy man suma waxee du dul noonu même buñ ba dénoncé ma noppi dañ naan waaye nag tiw defoon na nangam maanaam toujours dañuy dañuy gab gab ne ñaar ya kii mm. def na kii def na ba nga xam ne ka def lu dul noonu dañ koy wutal ay excuse hmm. te jàpp na ne loolu jaaduwul kon su fekkee ni mars am na hmm. dox nañ ci wax nañ ci ba yàlla def ci ndox mu sedd ñëpp dañu war di dox jàmm di wax jàmm mais ki nga xam ne aussi moom la ñu dénk réew mi nag dafa amee responsabilité responsabilité bi jëkk ci réew mi bi mu am mooy fexe ba kenn bañ a faagaagal askanu Sénégal kenn bañ a jéem a faagaagal réew mi kon bu fekkee ni gis nañu ay doxalin ak ay ay kàddu ay di tëkku yoo nga xam ni ca loolu la jëm parce que yow dégg nga du benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon du ñeent yoon bis bu yàlla sax dégg ko. Mm-hmm. ay nit taxaw ci rajo bi ni président Macky Sall bu tuddee troisième mandat dëkk bi dina tàkk ku ne yaa koy dégg kenn du waxu ci ñëpp di seetaan te réew mi nag bu fekkee dañu bëgg mu continuer di nekk réewum jàmm dafa am ci ay kenn yu mu sukkandiku te kenn yu ba ci jëkk wuy benn bi ci gën a am doole mooy justice nit mënul fajal boppam man waxuma troisième waxuma quatrième waxuma dixième mandat mais képp kuy sénégalais te remplir critères yi am nga droit jël sa dossier yóbbu ko tribunal yóbbu ko conseil constitutionnel. waaw bu dee wóoluwuñu bu dee wóoluwuñu conseil constitutionnel wóoluwuñu justice ma daane ci loolu ma daane ci loolu. Mhm. conseil constitutionnel boobu ñun dañu war nangu en tant que sénégalais ni moom dong moo mën a taxaw ñi diw war nga doon candidat wala diw mënoo doon candidat. mais nangu nga ne conseil constitutionnel boobu monsieur le ministre wóolu wuñu ko. ñu ci bari ci sénégalais yi dañoo jàpp ni ci waaw président la ñuy wéy. wax nga wax ji wax nga wax ji. Hmm. ndax bëgg ni kii mooy atte ci mi wóolu boo ko yow ba yow yaa bëgg atteel sa bopp. kon lu mel noonu lu mel noonu moom la jëpp war a ñaawlu parce que kenn amul benn doomu aadama bu taxaw ci réew mi. taxaw ne la wóoluma sama justice réew lii xew ci réew mi barki dem mu Ndiaye wane na ko. Mm. ay nit déposé nañu ay dossier préfet yi leen seen dossiers yi jaarlu yoon ñu dem tribunal tribunal jox leen dëgg am réew noonu lay doxee mais am réew la doxee ci xuppante. am réew du dox ci ci ci waxante wax ju ñaaw. waaw ñu ñëw sax ci rejet ci yooyu nga tudd ndax euh, préfet yi euh, gis nañu euh, yu bari ci ay liste yu ñu gàntaloon justice daf kaa dëggal est-ce que foofu tam ñu jàpp ne administration teritoriale loolu sax yàgg nañ kaaru mandat ñoom tamit dañuy wéy si waaw président bëgg a éliminer xëy na ay adversaire ndax gisuñu benn liste Benno Bokk Yaakaar bu ñu rejeté. waa xam nga d'abord yaakaar ne dañu dañuy faral benn bokk yàq pour rejeter euh, ay liste opposition bi. Mm. mooy ñàkk xam ni politique bi di doxee. Mm. xam nga benn bokk yàq lu koy arrangé tey. Mm. dëkk boo dem mu am téeméeri liste yu ko contre loolu moo ko arrangé. ndax élection bi ni mu demee du ñu ni ku am majorité maanaam téeméeri ni yu ne comme ni ñu def élection présidentielle xam nga dañ ni téeméer bi boo ci amee juróom fukk yu teg da ngay jàll. Mm-hmm. mais bii du loolu dañ naan ku rawee benn carte. kon yow mën nga ñëw ci ab dëkk fukki liste nekk fa. Mhm. ñii am juróom-ñeenti voix ñii am euh, fukki voix ñii am juróomi voix. Mhm. yow boo amee fukki voix ak benn da ngay jàll. Ah, kon ñu tasaaroo daal ñoom ñu tasaaroo. kon benn bokk yaakaar ñu liste yi li bëri moo ko gënal. Mhm. kon su fekkoon ni dañu administration comme ni ngeen ko waxee. dafa jóg bi di jàppale majorité bi. kon day gën a bàyyi liste yi ñu bëri. te it administration Sénégal am nañu juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari collectivité kon nit ku ñëw dem ci juróomi téeméer ak juróom euh, juróomi téeméer ak juróom euh, cinq cinquante sept mhm. juróomi téeméer ak juróom fukk ñaar mhm. nga yóbbu fa say liste am ñaar ñett ñeent fukk yu ñoo xam ne dañ leen a dàq te ku ci nekk nag lañ la dàq xam nga ko kon loolu war nga xam ne na nga def ba ñu nangu juróomi téeméer yi ak juróom fukk soo ko defoon ñu nangu juróom ñaaree ca des. loolu mooy est-ce que dàq gi tegu na ci yoon bu ñu gisee ni justice doxalee ginnaaw gi. mais attends hmm. dama waa no xam nga bu bu administration defee erreur. Hmm. justement loolu mooy rôle justice te fii lañ ko gis mais du ci lii rek. Hmm. yow da ngay gis même fonctionnaire buy liggéey ñu sanctionné la. d'accord ci nga saisir le tribunal tribunal rétablir ci sa ay droits. loolu luy mëste am la noonu la réew mi di doxee. d'accord mais. jëlal exemple fii ci Dakar xam nga listu euh, gëm sa bopp dañ ko invalidé mhm. mu wóor ñëpp di ci yoon lañ ko teg mhm. mais bañ demee tribunal tribunal dafa jox dëgg administration bi te ñi nekk ci administration ay doomu aadama la ñëw mhm. dañuy def erreur dañuy def lu dul noonu dañuy def lu dul noonu buñ ko defee heureusement ba am nañu tribunal ba xam man na leen a wàññi ni leen fii mooy yoon kon pour dellu si ci wax ji nañu dalal xel yi nañu dalal wax ji parce que damay wax toujours ni gisaguma ci am réew ñu ni nañ jiital diw ndax dafa mën a saaga nañ jiital diw ndax dafa mën a xeex surtout que nag ñiy wax di woote ay du ñëw ñoo koy jiite parce que même ñun ñi nga xam ne dañuy politique tey woote ay kenn ci ñun kuy génn oto ba ngay dugg dañ koy encadré ba lu mat ñaar fukki ponk la lay wër dara du la dal mais ay doomu jàmbur ngay jiital jaaduwul kon ñun ñoo war a delloo si suñu xel xam ne lii ñuy wax mënuñoo fexe fexe nit mën da fexe ba am jël réew mi te amoo majorité ci Sénégal. 1993 ak léegi. élection yu jeex na ci réew mi bu lool doon am Abdou Diouf du daanu en 2000. alal wala truqué wala leneen ak leneen wala pouvoir bu doon tere daanu ab lay Wade du daanu. Macky Sall bis bu ko peuple wane ginnaaw buñ koy wàcce kenn mënu ci dara ak justice mënu ko police mënu ko keneen ak keneen mënu ko. Mhm. kon nag. nañu dellu suñu xel. Mhm. xam ne wax ju ñaaw du tax a gañe wax ju ñaaw du tax lenn nga mën ko am loo nga xam warloo ko woon am. waaw Macky Sall président Macky Sall liste parallèle yi nangu na ni am na ci yoo xam ni moom moo ko autorisé ñu ko daan itam euh, xëy na njoxte waaye mu dëggal ko wax itam ci wet gi ne am na yeneen yoo xam ne nag autorisé wu ko da caa euh, yem képp def constat ni ñëpp est-ce que jàpp nga ne lii option bu baax la may ñenn ñu ñu def ay liste parallèle ci yenn gox yi. xam nga lu ko waral ma wax la. Mm. dafa am dëkk yoo nga xam ni te loolu man wax naa ko avant président di ci wax ni. Euh, boo dégloo keroog seen confrère yoon wi El Hadj Assane wax naa ci. Mm-hmm. Euh, dafa am dëkk yoo nga xam ne amu fa benn risque. Mm. ña fa nekk ñëpp di compétir njawootam lañu ku ci mën di gagné. moom moo gagné. moom moo gagné tey boo demee xam nga dégg par exemple fu mel ni Thiès benn liste am fa bu ci gën buñ ci xam mooy list bi nga xam ni moom la. Euh, mooy liste Benno Bokk Yaakaar Yankhoba Diattara jiite ko mhm. mais am na beneen list bu am doole boo nga xam ne un jeune bu ñuy wax Ablaye Dieye moo ko jiite ànd ak ñoom Ahmed mbay mhm. ba ak li ñuy wolof di wolof di wax xeeb nga xaj xal mu lakk sa dagg mhm. ba am na ñëw nga xam ne ci njaal benn dañ leen xeeboon mais fi mu nekk am nañu tiitaage ci ñoom mais heureusement que ñooñu njabootu président la boo demee xombal situation ba am na fa parce que xam na ne ñooñu ku ci mën di gagné ci biiram la mais am na dëkk yoo nga xam ne soo fa demee situation amu fa boo mel ne fu mel ne dakaar par exemple tey situation bu difficile la nañ waxante dëgg. Hmm. Abdoulaye Diouf saat mii candidat nekk ci li ma jàpp man le meilleur candidat. Hmm. taxul muy jàpp ni moom mooy gagné. parce que am na ñoo nga xam dañuy jàkkaarloog moom fu mel ni dakaar li doon avantage bi mooy ñëpp àndandoo ci benn liste muy liste bi nga xam mooy liste benn bokk yaakaar donc li valable Kolda comme ni ko président waxee mais valable à Dakar donc option la boo nga xam ne buñ ko déggaloon ñi nga xam ne ñoo CREC bu ñu ko déggaloon option boobu bonul parce que da nga ñëw ci dëkk ba nga xam ne ay nitu keseem ñoo fa nekk. ku ci mën di gagné nañu liste Sénégal 2035 Mame Mbaye Niang. mais loolu laa la wax moom hmm. la wax dama ne la fu mel ni Dakar loolu valable fi. Hmm. Dakar li fi valable mooy ñëpp àndandoo autour de hmm. boo demee Kolda loolu valable fa parce que ñaari ñi fay jiite ñi fay xëccoo te mu kenn ci ñoom mooy gañu ñu ñëpp waa Bokk Yaakaar la ñëw mais situation boobu du situation donc moo tax ma wax la ne li président di wax bu ko nit ñi déggoon ñi ko jege xam nañu ko xam nañu li muy wax lan la. Hmm. bu doon dañ ko dégg doxal li mu wax amul risque. mais am na ñoo nga xam dañu fétal seen yoonu bopp mais loolu nag comme ni mu ko waxee. Hmm. bala ñuy egg ci élection moom dana ko leeral boppam. képp ko ànd ak moom di nga xam ni fii kat euh, yo lii mooy listam la la doon listam. d'accord. ñu ñëw nag ci mbir moo xam ni mi ngi xewoon am na fukki at boobaak léegi coow li jugaat muy mbirum Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz ba muy xew yéen a ngi nekk ci nguur gi ñu joxoñ lañ sax baaraamu tuuma ni tey luy njaaka PDS ñooy ñoo ñoo ñoo njaak ndax ñoom ñoo yónni woon ay nervi euh, ci euh, mairie Barthélémy Diaz ñu song ko ba lii am am euh, yow lan mooy sawal wàll ni dëgg ci mbir mi lan mooy. lan mooy sa part de vérité boog ci ci euh, mbir mi xew Barthélémy Dias Ndiaga Diouf tey ñu ngi waxaat PDS la ñuy naan PDS yoonam nekku ci yow mi nga xam ne yaa ngi woon ci biir parti démocratique sénégalais ku ne xam la it ci ñeme li ngay wax lan mooy sa part de vérité. ci ci ci mbir xam nga xam nga loolu moom. kenn mënul taxaw ne PDS yoonam nekku ci. Hmm. dëgg rek moo tax ñuy wax man damay wax ni nit mën nga far parti bi tey suba nga far parti bële waaye dëgg moom benn la fu la fekk da nga ko war a wax ndax booba. délégation délégation la bi nga xam ne moom la wut yónni woon président yónni leen. président moo leen yónni si boppam. président Wade moo leen yoon ni mais yónni wu leen moom pour ñu xeexe wala pour ñu rayante dafa leen a yoon yónni ñu dem kër Alioune Tine wax ko ni ko ñun dañu am manifestation te dégg nañu ni opposé dañuy attaque si ñun nag bëgguñu histoire jàmm la ñu bëgg wut leen jàmm ñun liñ comme ñun niñ koy wute bu ngeen wutul jàmm leneen lu ngeen di ngeen ñu fa fekk. mais est-ce que est-ce que loolu tànk jàmm la woon ndax ndax monsieur le ministre nag boo yónnee tànk jàmm yow yaa ngi fi woon ñeneen ñu ngi fi woon di ay kilifa waaye boo yónnee ay nervi ñu yor ay ngànnaay nga ne tànk jàmm ngay dox waa loolu leneen la mais dag ma laaj ma lay leeralal li hmm. xewoon la ma lay la su ma leeralee ba noppi nag am nga droit tiire ci ni jàmm loon wala du jàmm hmm. mais dama lay wax li demoon li amoon li leen yëkkati woon defuma commentaire waaw fee yi ni mu demee laa lay wax hmm. donc ñooñu dem nañu kër Alioune dem nañu suma juumul kër Ablaye Bathily dem nañu kër Landing Savané am na euh, fàtte naa keneen ku ñu dem soo ko dem mairie Barthélemy Dias mais xam nga lu indi coow li nii hmm. ragaluk Barthélemy du leneen ragal ragal xam nga bu mu ñëwee parce que ñoom bi ñu fu ñu dem dañuy gaare seeni oto ñaaru la ñett wàcc dem wax ak ka ñuy waxal wëlbatikuwaat ñu dugg seen oto dem su ma waxee dëgg aussi man mi wax ak yow hmm. avant affaire ba di am yëguma ko woon bi mu amee laa ko yëg ma daw dem ci président ni ko nangam am na ci laa xam ne président yëgoon na ko moom. Hmm. mais li tax man la ragal ko indi ba ñu ñëwee buntu mairie Barthélemy. Hmm. ay nit ñëw wax ko ni ko ñi ñuy attaqué si. Hmm. te booba ñooñu yoruñu dara ay loxo yi nen la ñu yore woon. yoruñu woon gànnaay. yoruñu woon gànnaay sama aqulaayu taala lay wax. parce que bu ma ci doon am lu may làq la xal du ma la wax ni président Wade yëgoon na kon aw ma ci lu may làq damay wax dëgg yàlla tax. donc bi ñu ko waxee ñi ngi leen di attaqué ci la génn boo xoolee image yi sax am na ku toog ci ginnaaw Barthélemy ku toog ci di ko bëmax avancé avancé di ko bëmax muy tiire kooku di ko bëmax muy avancé kon loolu noonu la mbir mi demee woon yoruñu woon ngànnaay c'est vrai mais c'est vrai aussi que ñoom ñoo fa dem suñu fa demul woon li am du am. kon nangu nga responsabilité wu PDS ci mbir mi ak président Wade. ah absolument loolu moom kenn mënu ko. waaw nangu nga itam ne bu doon jàmm doo nga leen yëkkati est-ce que demu ñoon pour xupp leen genre napp gis ngeen ñu ñoo ngi nii taxaw na nu mën nañoo defanteeg yéen bu doon jàmm dëgg-dëgg moo leen yëkkati ñu waxante dëgg euh, est-ce que jàppoo ne xëy na ku mel ni yow wala keneen ak keneen ci kilifay PDS yi la ñu yónn ñu dem waxtaan ci njëkk ak teranga waaw xëy na loolu mënoon na nekk c'est possible mais xëy na aussi tension bi eggoon na foo nga xam ni peut-être ñi leen yónni woon yaakaaroon nañu ni loola moo mënul a indi jàmm te it mënul a indi jàmm parce que fa ñu dem yëpp coow amu fa hmm. ñii wax nañoo ñoom ñi fekk ñu la ñu bàyyi fa bataaxal dem kon li indi coow li mooy bi ñu demee mairie Barthélemy noonu la mbir mi demee maintenant loolu comme ni nga waxee nii kenn ku nekk mën gi def sa analyse bopp gis ne bu ñu defoon nangam ak nangam lii du am mais en tout cas fee yi moom sans ma commenter ko noonu la tëddee woon. jërëjëf jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey euh, di jégaluwaat auditeurs yi ci ñàkk leen a dégtal version française bi waxtaan wi mun ngeen ko teewluwaat ci réew rewmi point com ak Rewmi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube jërëjëf monsieur le ministre. jërëjëf euh, Serigne Mbacké